baabu sifatil wudooy lii mooy buntu meloon jàpp wa masnoon yi ak lañu sunnaalam wa mafroodu yi ak lañu farataalam wa dikril istinjaay ak tudd tàncu wa dikril istinjaay ak tudd tàncu wal istijmaari ak ak dawandiku nee na dañuy wax fii ni ngay jàppe ak lan mooy farata ci njàpp ma ak lan moo ci sunna wax itam ñu wax tàncu tàncu mooy bu demee ca wana wa sobe su génn ci moom mu raxase ko ndox maanaam mu dindee ko ndox loolu mooy tàncu istijmaar bi mu wax na dawandiku wala fi koy wax noonu rek waaye li jublu mooy ba mu demee ca wana wa sobe si génn ci moom mu mu dindee ko lu bokkut ak ndox mel ne bant wala donji suuf wala ab morso wala yosal istinjaawu déet tàncu mimma muy loo xam ne yeji bu gën a war an yoosala bu dee fi jokk bi ci moom alwadoo njàpp nee na dem ci wana wa dindi sobe sa la taq néew ñu faaw njàpp di caa war a sës xanaa waxtu waxat nga xam ne ba muy génn ci wana wa jàpp rek daal jullee fa mën a nekk xam ne bu ko deful julli ko raw ko waaye bu fekkee loolu de moom bu ñu wax ne rek faaw bu dindee sobe si faaw mu daal di jàpp fi saa sa day fekk rek mu soxlaa jàpp daal laa fii suna nil bu doy biir mu ngi bokk ci sunay jàpp wala fii fara idahi du caa génn ci ay farataam nee na dindi sobe si ci moom demee ci wana wa bokkul ci sunay jàpp bokkul ci faratay jàpp waxu moom daal min baa bi ijaabi zawalin najaasati mu ngi bokk ci buntu waral dindee sobe bi ci moom aw bil istijmaari wala ci dawandiku li allah yu salli ngir mu bañ a jullee bi ak sobe fii jasadihi ci yaramam nee na daal dindi sobe si moom dañuy bañ rek mu julliwaale sobe kon moo xam da koy dindee ndox moo xam da koy dindee bant ba leneen bañ a julliwaale sobe rek moo tax ñu dugal ko mu dindi ko kon daal bëgg a dindi sobe bala ngaa julliwaale sobe rek loolu moo tax ñu digle tàncu ak dawandiku bañ a julliwaale sobe rek tax ñu digle ko waaye siiw dana doy fi àlluhoo defam nga bi xëy ni yéen ci lu lu yéene nee na mëtta yéene maanaam mëtta teewlu yéene ji bu ko defee rek baax na wa kazalika naka noonu xaslu saw bi raxas malaan an najis muy aji sobewu bu malaanam amoon sobe mbaa yaramam def sobe mu di ko raxas tam du jar yéene bu ko teewluutoon ba raxasoo mbaa mu doon sangu rek fa raxasaale sobe soo xam ne fàtte woon ne nekk na ci moom mbaa mu doon fóot ay yére rek far fóotaale sobe soo xam ne fàtte woon na ne nekk na ca waaye rek na nga ko fóote moom ndox mu nga ko fóote yell na yëpp baax na kon loolu doy na ñàkk gaa yooyu du joxe dara wa sifatul istinjaay melaw tànc wa nag an yab daa mooy mu jëkke an yab daa mooy mu tàmbali baax da xas li yadi yi ci gannaaw raxas loxoom fa yax si la te muy raxas maxrajal booli génnukaayu sow ma nee na melaw yi gën a tàmm nag ci bu demee coono wat du bëgg a tàncu tànc mooy dindi sobe si mooy loxo càmmoñ bi nga xam ne moo war a dem ci sobe si da koy raxas xaat te taqagul dara bala moo laal dara ci sobe si lay njëkk raxas loxo càmmoñam boobu loolu li muy jëriñ mooy gannaaw bàyyi ko ci sobe sa du xeeñ loolu lay jëriñ su ko defee nag mu njëkk raxas saw mi ne ko saw mi moo gën a woyof na ko njëkk door a dem ci sobe su mag si su ma yem sax topp mu fopp maa la nga xam ne fil maxar ji nekk na ci génnukaay ba minal aza ci sobe bi madarin ci donji suuf aw xëyri yi wala lu wala lu dul donji suuf nee na mën naa njëkk jël aw doon ci suuf mbaa bant njëkk koo wàññee li ci bunt suuf bi fii bëgg raxas ci bunt suuf bi na ko njëkk wàññee doon ci suuf mbaa leneen door ko raxas ak ndox aw bi yadi yi wala bokki loxoom su ma yaxub kaxaa topp mu wokkaat loxo ba bil ardi ci suuf a yax si laxaatem koy raxas ba tey nee na mën naa njëkk jël loxoom njëkk koo fompe bunt suuf bi mooy wàññee ko la ci taq ci ay xayta waaye kon day jël loxo ba jonj ko ci suuf raxas ko door ko delluwaat na xam doon raxas ca bunt suuba muy doolu tàmbali raxasaat nag sama istan ji topp dana tàncoo bil maa yi ca ndox ma su ko defee nag mu daal jàll nag di sot ndox mi di bomb rek wayu waa silu te muy jokkale sàbbaxoo sotti ndox ma waye sarxee te muy yolomlu xalilan tuuti yolomlu gi mooy bunt suuf bi na ko bàyyi mu yolom mu wàcc ndax bu ko bàyyee mu banku day banku waale sobe ndax ni ko yàlla bi ndima bunt suuf bi dafa def ay ras-ras ko defee koy bàyyi mu wàcc rek ngir sobe si bañ a banku ci raf-ras yooyu way yu jiitu tamit rafetal arka zalika ragloolee biyadi yi ak loxoom xataa yata naddafa ba muy set ko defee neen nag mu ragg bu baax rek ba mu set walay sa àlayi di di ko war a xas lu ma raxas la nga xam ne battana biiru na minal maxrajoy ni ci ñaari génnukaay ya muy muy buntu suuf bi muy buntu saw mi nee na lu ci génn ci biti rek am àtte ñu war ko raxas waaye lu ci biir moom kenn du wax kenn nga luqara ci ko génne ko ci bitti déedéet lu feeñ rek am àtte ñu war koo raxas waaye la ci biir moom li ñu ko sonal ci nekk faaw nga loxo ci ku mu génn wala wistam jaadeefu tànc minoo yiñ ci aw gelaw gelawal moom bu génnee gelaw rek fa génnee du jar muy raxas bunt suufa ndax du fa bàyyi dara luy taq dañuy wax ne bu fekkee ne moom mën naa boole njëkk koo dindee ay doj wala ay bant door ko raxas ak ndox mooy gën waaye loolu nag bu fekkee ne ci ni ñu aadawoo ci def duus yi ci kër gi la bu fa yóbbaalee doj wala ay bant daal di koy noppi daal koy sot daal koy sànni ci kanam duus ma day daal di sakk day daal di indi lor su ko bàyyee su ko bàyyee fa suuf it mu daal di indi taqal foofa ba tey sax noonu mu waxoon léegi bu njëkkee jël loxoom wàññee ko taq-taq bi bu ko bombee fi fa suuf foofu ci dus ba ci suuf it dana taqal foofa léegi ñu waxoon na itam ne bu raxasee bunt suuf bi li génn ci biti rek na doyloo loolu loolu ba tey jàpp ko bu baax ndax dañoo wax ne araam na mu jël baaraamam di ko dugal ci biir bunt suufam ci lu dul ngànt ci lu amul lor waaw kon li génn ci biti rek bu ko raxasee jaanam wàcc na wa man istajmara ku dawandiku bi salaasati ah jaarin ci yetti doj yaxruju yaxruju day dana génn aaxiruhunna aji mujj seen naqiyan mbir muy aji set aji sa ahoo mu doy ko waaye wal maaw ndox nag ak xaru moo gën a laab wa ab yóbbute moo gën a teey wa axabute moo gën a sopp ilal xulamaa yi jëm ci way xam ni dañu dawandiku waxoon nañ léegi ne la wala fee koy wax noonu rek waaye li jublu mooy ba mu demee ci wana wa mu dindee sobe si lu bokkut ak ndox mel ne bant wala doñu suuf wala yooyu yooyu nag nee na dañoo sopp mu tooy mu def ko ñetti doñu suuf ba ñetti bant ba ñetti morso su fekkee foo ñetteelu na ba mu ko ba mu ko fompee xool taqul dara tegtal ci ne kon fa mu doon fomp set na waaye nag bu fompee woon benn tam set bu ko neexee doy ci maa bu ko neexee yem ca bu fompee ñaar tam noonu bu ko neexee yem ca set na ñett yi wax nag moom bu ko fompee woon te setut it du tee mu jàll fompaat ba këram muy set waaye nag nee na dawandiku googu ma dindee sowee si lu bokkut ak ndox ndox ko gën bu fekkee mën naa am ndox daal ndox a gën dindee ko doon ci suuf ba bant ba leneen ndox moom sànni dañoo toll woon ci wax naa bu demee ci wana wa sobe si génn ci moom mu raxase ko ndox moo gën dindee ko bant wala doon ci suuf wala yu demee noonu waaye itam ñu fàttaliku ne bu fekkee ne sobe sa xës na tasaaroo ci buntu ba ikk buntu suuf bi xës na tasaaroo sobe sa tasaaroo na ca faaw dañ ko raxase ndox rek waaye fomp du ca doy ba tey góor bu fekkee ne am sawam dafa tasaaroo bu baax bu weesu bunt bi itam faaw dañ koy raxas rek waaye fomp du ca doy sawam jigéen itam faaw dañ koy raxas rek waaye fomp du ca doy bu doon mën yi itam faaw dañ koy raxas rek waaye fomp du ca doy mu jàll nag ci waman lam yaxruj koo xam ne génnut minhu ci moom bawlun saw wala xaaitum du caa génn xayta wa tawadda te mën na ma jàpp li xadasin ngir am toj aw nawmin wala ay nelaw aw li xayri zalik wala ñeen lu dul loolee mi maa ci la nga xam ne yooyu jibu dina waral alxudo a njàpp fala budda mënta ñàkk min xas li yedee ci raxas yaari loxoom xabla duxoolihi maa ci njëkk seenu dugg fig inaay ci ndab la nee na bu fekkee day bëgg a jàpp te moom deful li waral ay loxoom taq nit ki bay boolu ci wanoo bañ naa saw dafa taq ci loxoom baa xayta mel ne dafa doon nelaw rek ba yeewu nelaw yu toj njàpp mu bëgg a jàppaat koy du tee dañoo bëgg fekkee ndab la muy jàpp dafa ubbi ko bu mu jekki-jekki as na raxas loxo yi ñetti yoon dëngal ndab yi raxas loxo yi ñetti yoon doo tàmbalee as ndax loolu bokk na ci li ñu digal te xamuñu lu tax tax mu ne wa min sunnat lu ko doy bokk na ci sunna njàpp ngas lu jëlee raxas yaari loxo yi qabla doxooli ci maaj njëkk seenu dugg fili naay ci ndab la waaw maanaam bokk na ci sunna ñu digal ni ko bala ngaa tàmbalee as ak say loxo ca ndab la ngay dëngal ndab li raxas loxo yi ñetti yoon doo tàmbalee as bu fekkee ne itam bu ndab loo nar a as mel ni baraada wala sat la itam noonu du tee rek raxas loxo yi ñetti yoon moom ci tàmbali bi sunna la lu loxo yi set set du tee rek raxas ko ñetti yoon moom sunna la wal mad madatu galaxndiku wal istinshaahu ak taraxndiku wal istinsaahu ak fiiru wa madful ubunayni ak masa ñaari nopp ña sunnatu sunna la wa baaqi aji desam ja fariyatun farata la boo weesoo raxas yaari loxo yi ci booy tàmbali dañu waxoon léegi ne bu dee ndab li ubbiku bala nga as nga tàmbalee dëng ndab li ba raxas loxo yi ñetti yoon xanaa ñu dolli ca ne la rek bu fekkee ne say loxo dafa taq na nga daal di jékki-jékki dugal ci say loxo ca ndab la far ndox ma soppi moom moom ndox day yàqu nga wutiwaat meneen bu fekkee ne nag say loxo taqtoon daa fekk say loxo set nga xam ne moom da ngaa jekki-jekki rek as di raxasu loxo yi ñetti yoon xëtt nga ndigal rek waaye du tee say boo jàll ndax mu ndox mu yàquut lim ci teg nag mooy daa wax ni galax ndiku sunna la sawax ndiku sunna la fiiru sunna la masa noppi sunna la ba noppi nag ne ba baax yi aji desam ja faridatun farata la maanaam boo weesoo yooyu daal li des farata la loolu waxin la wu xaw a lënt nii waaye ndegam jàng nga téer yi nga weesu rek te xam nga ne sunna yi di du yi doom te boo weesoo sunna yi di saat nañ ngëneel loolu nag kon du am solo ndax weesuñ ko téere yi ci des ñu wàññi ko ci bataay di wàññi farata yi wàññi sunna yi mën ngaa dellu foofa fa man xaama ku jóg ilaa wu doo jëm ci njàpp min naw min tubee ci nelaw aw xayri ci wala lul moom faqad xaala wax na baax dul xulamaa i lenn ci koy xam ni ne yëpp dawale tàmbali fayu sam yi tamit tudd allah yàlla wala mi raxoo waaye gisul loolu baaduhum lenn ci ñoom minal amri mu bokk ci digle bil maaroof ci njëkk waxin woowu daa gudd rek waaye li mu bëgg a wax mooy dañoo wuute ci booy tàmbalee njàpp ndax da nga wax bismillahi wala doo wax bismillahi wax ji gën a wóor nag da nga gis ko ba tàyyi téere yi nga weesu mooy sopp nañ booy tàmbalee njàpp nga wax bismillahi wax ji bismillahi bokk na ci ay nganeelam wa kawnul inaa yi nekkum ndab la alaa yemmin yi ci ndeyjooram am kanu moo gën a jàpp ndi la ñal ko fii tanaawul yi ci yóotoom nga maanaam bu fekkee ndab li ngay jàppale ndab li ubbi nga xam ne ngaa nar a as kon sopp nañ mu féetale ndeyjoor waaw bu fekkee asoo nag ñu sopp mu féetale càmmoñ ki bu dee baraada wala sot la ñuy jàppee wa yab daw dana tàmbali fa yax suuta muy raxas yedde yi yaari loxoom xabla an yuddu fi dafa maaj njëkk mu leen bëggal fini naay ca ndab la talaata ñetti yoon dafa bëgg a tàmbalee jàpp fa mu tàmbalee ba fa mu yem moo tax mu baamuwaat raxas loxo yi ñetti yoon bala nga ko dugal ca ndab la da waxal na ko léegi fa in kaana ndem nekkoon na xadd baala di saw aw taxawata wala mu xayta nga xasala mu raxas daalika loolee min ci moom suma tawat daa topp mu door a jàpp xanaa bu fekkee dafa demoon ci wana wa maanaam daal ci misaal saw génn ci moom mbaa xayta génn ci moom bu fekkee taq na ko fenn mu raxas la ko ci taq door a jàpp waaye nag am na ci foo xam ne bu ko fa saw mi taqee wala xayta yi moom mën naa jàpp nag door ko raxas te du yàq dara ne bu ko taxoon ci boobu nga xam ne raxasu boobu moom du ko jàpp bu ko neexee jàpp nag door raxas foofa waaye bu xëy tey taxoon nag ci buntu suuf wala ci buntu sawukaay bi nga xam ne moom bu jàpp nopp dem di ko raxas xam nga loola laal gam laal sawukaay ba toj njàppam kooku moom faaw na njëkk a raxas foofa ba nopp door a jàpp jàpp moom moo war a mujj loola sama yutu fi topp dana dugal yedda xoolu xoom fi li naay ca ndab la fay aqusu tamuy jàpp mooy tamuy jël rek almaa ndox ma fayu mabdu mebbu te muy galaxndiku faaxu gimiñam talaata ñetti yoon mun xarafatin ci ab tangin waaxidatin bi benn insha ndéem soob na ko aw talaasi xarafaatin wala ñetti tangin nee na boo raxasee loxo ñetti yoon galaxndiku moo ci topp galaxndiku nag mooy da ngay jël ndox def ko ci sa gimiñ yëngal ko yàbbi ko mën ngaa tang benn tang képp nag galaxndiku ci ñetti yoon waaye nis tàkk ndem soccoo na bi usbur yi ci baaraamam fa xasal kon aji rafet la maanaam boo jëlee sa baaraam bi ngay galax ndi ko fotti ko sooy bañ baax na waaye lu gën nag mooy bala ngaa jàpp ngay jël bant wala lu ñagas soccoo ko ba mu set nga galax ndi ko tuur loolu tàmbalee jàpp boo bàyyee bay jàpp na nga jël sa baaraam fotti ko ba ñu lay wax naa loolu tam baax na suma yestan choq topp dana sawax ndiku bi am fii ci bakkanam alma ndox ma waaye yestan firuhoo tem koy fiiru talaasa ñetti yoon yooyu ci xam dana def yeddu xool loxoom xalaa an fii ci kaw bakkanam kam ci xaati yi niki ñandoom ga nee na boo noppee galax ndiku sarax ndiku moo ci topp sarax ndiku mooy da ngay ënd ndox mi ba mu jegee sa bakkan nga ñoddi ko ci sa noo bakkan mu jàll ci biir nga xëcc ko mu jàll ci biir bakkan bi su fekkee da ngaa woor nga yemale ko ci bunt bi bu fekkee wóoroo nga ñoddi ko ba mu jàll bu baax a baax ci biir su ko defee ndox moomu duggoon nag boo jàppee ci say bakkan mel ni ku ñandu wal ko mu génn nag loolu moo tudd féeru lu ci nekk nag nga def ko ñetti yoon lu ci nekk ko tàngam ba tey moo gën waaw sarandiku bu ci nekk ak tàngam boppam moo gën nga def rek benn tàng sarandiku ci ñaari yoon ba ñett teew nag boo ko defee itam mu doy waaye da ñett yoon yi moo gën mooy ñett tàng yi daal moo gën benn wi wala ñaari booy gis yoo dana ko doy ak lu lu yees min talaasin ci ñett fil mab madati ci galaxndiku wal istinshaaq ak saraxndiku booy gis yoo dana ko doy ak lu lu yees min talaasin ci ñett fil mab madati ci galaxndiku wal istinshaa ak lax ndiko nee na boo ko lax ndikoon benn wala ñaar te bañ a dem ba ñett koy du bu baax waaye ñett yi nag moom moo gën wala xoo ñel na ko jëm dalika boole loolee fii xarafatin cib tangeen waahidatin bi benn wan nihaayatu waaye yemukaay ba it ahsanu moo gën rafet nee ba la neexoon tang benn tang rek galax di ko ci ñetti yoon mbaa tang benn tang sarante ko ci ñetti yoon waaye ni ñu ko waxee woon léegi gënut li gën mooy tang bu ne maanaam galax di ko bu ne akub tangam salax di ko bu ne ak tang boppam rek muy ñetti galax di ko ak ñetti tang di ñetti salax di ko ak ñetti tang dal ma ban soo yàqu su topp dana jël almaa ndox ma incha ndeem soob na ko biyee dee ci yaari loxoom yi jëm yi xam boole seen wa incha ndeem soob na ko biyee dee ci loxoom ba alim naa bay ndey joor fay jox bi tam koy def fiyee dee ci yaari loxoom jëm yi xam boole seen su ma yan xulufoo topp dana ko toxal ilaa wa ci jëm ci kanamam fa yëf rek foo tam koy sotti xale yi ci kanam nga raxaasi lan bi mu ngi aj raxas loxoo ñeel kanam nga biyee dee ak yaari loxoom min en laa jëbaxati yi tàmbalee ci gën jaa kawe yi ak jëxam gën jaa kawe yi jëxam nee na boo noppee sarax ndiku ak fiiru raxas kanam moo topp raxas kanam nag bu la neexee nga nga jël ndox mi ak sa benn loxo rek dal koy defaat ci loxo càmmoñ bi moom itam yaar yëpp bokk am ndox nga daal daal yóbbu ndox mi ci kanam bi daal koy tàmbalee bomb di ko bomb sa ñaari loxo yëpp waaye bu la neexee itam nga bomb sa benn loxo rek moom maanaam bu la soobee daal bu la ndab bi ubbiku nga jékki-jékki jiw sa ñaari loxo yëpp ca ndab la ñaari loxo yëpp am ndox nga daal ko yóbbu ci kanam gi tàmbalee raxas ak sa ñaari loxo waaye bu la neexee nga jël sa loxoom ndeyjoor tibbi ko ndox mi ci ndab li defaat nag ci loxoom càmmoñ ba ñu bokk am ndox nga yóbbu ko ci kanam gi nag di raxas rek waaye loolu lépp ko wax rek waaye boo jëlee sa benn loxo ndeyjoor raxas ko itam ba bu càmmoñ itam du ko tee baax ko defee nag raxas kanam boobu day farata da ngay sot ndox mi nag ci kaw jibi bu ko defee ndox mi ragalaat ngay bomb dañuy moytu nga sotti ko ci li wax ñu mooy kaw jibi nga sotti ko ci suufu jibi nag taw muñ ko ndax ni nga ko waxee woon ci téere ba doon jàng léegi dañu bañ nga masaa kaw ji bi rek te bañ koo raxas te loolu lu ma koy faral di indi waxat waxat du hoo ab limitam maanaam ab dayoom moom kanam gi manaabitu shahari rasihi mooy saxukaay yi kawaram boppam ilaa tarafil daqani yi ba ci catul daaju sikkimam wa dawra wacc yi ak yaatuwaayu kanamam nga kullahoo léppam min haddi xadama yi lax yi tàmbalee ci daytalu yaari yaxi sikkimam ilaa sunduxay yi ba ci yaari kaabaabam kanam yéen koo sàkkal ab guddaay sàkkal ko ab yaatuwaay guddaay bi moo tàmbalee ci jëbi fi kawar baaxoo saxe ba ci sikkim bi yaatuwaay bi nag moo wër tàmbalee ci noppee ba ca noppee loolu lépp nag nga raxas ko du bañ caa bàyyi dara farata la wayu mbir bi tam yombale yedde yaari loxoom xalaamaa ci la nga xam ne xaara xóot na min zahiri ajufaan yi ci bitti ay mbari bëtam wa asaari jëfatihi ak rasrasi jëfam ñu koy wax ci wolof ñagg-ñagg jëfam wama ak la nga xam ne taxata maari ni fi nekk na ci ron sukk bakkanam min zahiri an fii ci bitti bakkanam nee na nag bu fekkee da nga raxas sa kanam na nga ko seetlu bu baax bu fekkee ne say bët dafa xóot na nga seet xóotaayu bët yi fexe ba raxas ko sa loxo nga awale ko ci kaw bari bët yi ndax dañu bañ nga jël ko bu sëb ji amee ay ras-ras nga fexe ba nemmi ko ras-ras yooyu su fekkee bakkanam dafa def copp-copp nga xam ne am na lum tiim boo boo bëtiku ndox mi day barastiku waaye lu tiim copp copp bakkan bi ndox du ko laal loolu na ko nemmi ko bu baax nga xam ne gémmiñam sax bu ñëwee ni mu war a ñëwee li feeñ ci tuñ yi sax war na koo raxas moom la it nemmi koo kanam gi yéex si lu gën a raxas ba jëfoo kanamam xaaka saa niki ni salaasa ñetti yoon yan xulu day toxal almaa ndox ma illee jëm ci moom ne ni mu ko waxee ngay raxas kanam yow mi ñetti yoon daañu leeral ne la ñetti mën naa ñàkk ñett yëpp boo defee benn tam daj te set rek lu ne xeeyam ci bu fekkee benn setut na ñaar du mën a ñàkk bu fekkee ne ñaar ba tey dajut mbaa setut ñett du mën a ñàkk waaye bu xasee set rek ba ca topp moom ngëneel la leer mu ne day taxal ndox ma jëme ci moom day mel ni kon boo tiimale woon ci robinet bi mu sotti rek sa kanam nga bomb du doy waaye daal wax ji gën a wër mooy koy du ko tee doy nga xam ne tibboo ko yóbbu ca ndox mi fekk si wax ji gën a wër mooy du ko tee doy wayu xarre ko tam yëngal li yetaxoo sikki mun ba fii xas li wàcc yi ci raxas kanamam nga bi ko fay ak yaari jàngam li ñu daax ilaxaa ngir na ko dugg almaaw ndox ma li def yi saxari ngir fegu kawar ga li maa ñeel la nga xam ne yu laax yi dana taseen moom minal maa yi ca ndox ma maanaam sikkim ñaar la bu dee jàpp sikkim bi nga xam ne dafa sax kawar waaye kawar gi fëttu boo dee xool seen fi kawar ga saxe kooku day aajo nga yëngal ko ba ndox ma dugg ci biir waaw bu fekkee dafa fatt nag moom nga xam ne boo dee xool loo seen fa kawar nga saxe kon boo awee sa loxo ci kaw rek mu daal doy du aajoo nga di ko yëngal ba ndox mi dugg ci biir alayhi walay sa alayhi déeti ko war tax li waxaa xaylug sikkim ba fi loo doy ci jàpp fi xaw li maalik ci waxi maalik wayu juri day dawal xale xaa ci kaw sikkim ba yedday yaari loxoom ilaa axirihaa ba ca mujjam nga mel ni wax léegi maanaam bu fekkee sikkim bi sikkim bu fatt la ba awal sa ba awalee sa loxo ci kaw rek mu doy du aayoo nga ne ko yëngal nag bëgg ndox mu jàll ca biir soo agsee foofu kon noppi nga ci kanam su ma yax si topp na raxas yeddaxoo loxoob alimna bay ndeyjoor talaasa ñetti yoon awis na tey ni wala yaari yoon yu fiiru dana sotti alixaa ci kawam almaa ndox ma wa yaaru ko xaatim ko yarat bu beeti ci loxoom alyusra bay càmmoñ wa yu xalilu tamit xalil asaabi an yadayhi baaraam yaari loxoom ba'daha lenn seen bi ba'din ci lenn nee na nag boo noppee ci kanam nga dem ci boo noppee kanam nga dem ci loxoom ndeyjoor loxoom ndeyjoor mu ngi njëkk a raxas nga ci def ndox daal di koy bomb su loxoom càmmoñ te bul fàttee xalil baaraam yi mooy ni yàlla sàkki baaraam yi loxo dafa sore kon fexeel ba diggante baaraam bu ne moroom ma xarala yooyu nga nemmi ko ko te loolu mooy xalil gi su ma yax si topp na raxas al yusra loxob càmmoñ ka taalika naka noone boo noppee loxob ndeyjoor nga dem ci loxob càmmoñ wayow loxo dana jot fii maa ci ñoom ñaar bil xas li ci raxas ga ilal mirfaqay ni ba ci yaari conjee yu dux yi maa dina leen dugal sax fi xas li ci raxasam nee na boo dee raxas loxo yi bul fàtte da ngay dem ba ëmb conce yi tuuti ndax yemale ca kese dafa xaw a jafe kon da ngay dem ba ëmb leen tuuti waxat xii la waxees na ne ilayhima yem na ci ñoom ñaar xaddul xas li daytal raxas ga ci kaw loolu fa laysa bi waajibin du aji war iddu xaaluhuma seenu dugal ñoom ñaar fii ci raxas ga waaye wa iddu xaaluhuma seenu dugal ñoom ñaar muy ñaari jonce yi fii ci raxas ga ah wattu moo gën a leemtu li zawaali takallufi taxdiidi ngir dañu coonub yemale ga dañoo wóote ci booy raxas loxo yi da ngay dem ba ëmb conce yi am na nga ci yemale képp mu ne nag nee nañu dem ba ëmb leen tuuti daal moo gën a wóor ndax yemale ga kese dafa jafe kon nag dem ba ëmb leen tuuti rek say boo jàpp jooju wax su ma yàqu si topp dana jël almaa ndox ma bi yëdi yi ci loxoom aliou naa bay ndeyjoor fa yëf rek wooteem koy sotti àla baatin yëdi yi ci biir loxoom aliou sara bay càmmoñ su ma yem sax topp dana masa bi himaa ci ñoom ñaar ra safa boppam yëpp dawree tàmbalee min muqaddami yi tukki tukki ci njëlbeenam min awal yi manaabiti shahari rasi yi tàmbalee ci njëlbeenub saxukaay yi kawaru boppam waxadd xarana te fekk na mu lëkkale mooy ràbbale atraafa asaabihi yadayhi cati baaraam yaari loxoom ba'daha lenn seen ba'din ci lenn ala ra'sihi ci kaw boppam wa jaxale te mu def ibhamayhi ñaari baaraami dayam ala sudxayhi ci kaw ñaari kaabaamam way wane ne boo noppee ci loxob càmmoñ da ngay jàll ci masa bopp bi masa bopp bi nag nee na da ngay njëkk a def say loxo ndox ba ñu tooy ñoom ñaar ñu waxee sax mooy da ngay tibb ndox mi sa loxom ndeyjoor daal def ci bopp càmmoñ ñoom ñëpp ñu bokk tooy su ko defee nag nga daal di ràbbali baaraam yi teg ko ci fi kawar baaxoo saxee ci jëw yi sa ñaari baaraam yi day moom nga teg ko ci kaaba bi ko defee nag tàmbalee ci kawar baaxoo saxee ci jëw yi di masaana wuti dox ga ma tax mën naa su ma yedd xaba topp dana demee bu yedd yi ak yaari loxoom maasi xan mbir muy aji masa ila tarafi chahri wa asihi ba ci cotal kawar ak boppam ni maa ci la nga xam ne yéen yi dana sasoo xafaaxu doxam nga ngay wéy di nga wéy nag ba nga xam ne dem nga ba ca dox ga fa kawar ga yem ba kawar ga guddee itam nga topp ko di wéy rek ba kawar ga fa mu yem ki ba dee kawar tubaab yi naar yi su ma yarul duxumaa topp dana leen delloo si ñoom ñaari loxo ya ilaa xes badaa fa mu tàmbalee woon nee na boo demee nag ba ca dox nga ñëwaat nag ba ci jibi nga tàmbalee woon xam dem bi mooy nekk farata dellu si bi nag mooy nekk sunna waaye xosu tamit jàpp bi ibhaama yi ci ñaari baaraami dayam xal fa udduna yi ci gannaaw ñaari noppam ilaa suduxa yi ba ci yaari kaabaabam nee na bul fàtte bu loxo yi dee wañarbiku jëm si waat ci jëbi sa ñaari baaraam yi na aw ci ker nopp yi ker nopp yi boo demee yoon wu njëkk ba tooyu ñu woon kon nga fexe ba say baaraam yi day aw foofu ci ker nopp yi bu loxo yi dee waññiku ko defee nag jëm si ci jëbi kon defal noonu okoy fa ma masa nunu mosaay rek nag aji sa axoo mu doy ko ita aw xabande matale na ra saxoo boppam ni ñu wax ni moom la ñu masaay kat nee na dañ ko wax rek te moo gën itam waaye soo fexee baraay bopp ba mu daje rek te bàyyiwoo fenn rek mu baax nga tax ma teg ci wal awal waaye anam gu njëkk gi ah sama moo gën rafet mooy ni ñu waxee nga defe ko ni moo gën waaye noo fexee masaay bopp ba mu daje rek mu baax moo tax mu ne walaw àdd xale doonte dugal woon na yedde yaari loxoom fi ngi naay ci ndab la suma rafaxahuma topp mu yëkkati leen ñoom ñaar nopp loolu la tey ni mbir mu ñuy yaaru ñu yaaru ñu tooyal mbir mu ñuy yaaru ñu tooyal wala nga ne rek nopp loolu la tey ni muy yaaru ñu tooyal wa masax te mu masax bi ximaat ñoom ñaar ra saxoo boppam aji saxoo mu doy ko ñoom fekkoon ngay jàpp ci ndab lu ubbiku nga jekk-jekk dugal si ñaar loxo yépp ci ndab la daal di bokk tooy nga raaya raay sa bopp ba mu doy rek bayoo fenn waaye fépp dañ na koy itam mu doy tuma yufriqu topp dana sotti alma ndox ma ala sabbabatayhi ci ñaari baaraami sànnikaayam wa ibhaamayhi ak ñaari baaraami dayam ya wa insha ndeem soob na ko it xamasa mu nuural dalika loolee filma yi ca ndox ma suma yem sama topp dana masa uzunay ñaari noppam zahiruhuma seen bitti wa baatinahuma ak seen biir waaw nee na boo noppee ci masa bopp bi da ngay ñëw ci masa nopp yi bala ngaa masa nopp yi baaraam yi nga xam ne ñoo war a na- ñoo war a masa muy ñaari baaraam yi sànnikaay yi ak ñaari baaraam yi day ci loxo bu ne da ngay fay ci def ndox mu yees ndox mu yees moom loolu la ñu tuddi taj jidul maa yi daawañ ñi sunna dañ ci daawañ ñi sunna yi jàpp dañ ci boole yeesal ndox mi loolu nag mooy bi nga masaayee bopp bi bala ngaa masaa nopp yi baaraam yi nga xam ne ñoo war a masaa nopp yi nga defaat ci ndox mu yees waaw mu ne nag bu la neexee itam nga jékki-jékki jël baaraam yooyu nuural leen ci ndab la ni ki bu dee ndab lu ubbi nga jékki-jékki rek nuural ci say loxo ko defee baaraam yi daal di tooy nga daal di masaa nopp yi nag nopp yi da ngay nopp yi da ngay masaa biir bi masaa bitti bi bitti bi mooy lu féeteeg bopp ba biir bi mooy li ngay jàkkaarloo boo dee xool nopp nopp nit moom nag benn yoon rek lañ koy masaa tax jubluwul bu set jubluwul bu set ñu raxas loola ko benn yoon rek nga koy masaa bàyyi wataam saxu dana masaa almaratu jigéen kama zakar naa naka nu tuddee woon wataam saxu dana masaa xalaa de la liha ci kaw ay léttam wala tam saxu te du masaa xalal wiqaayit ci kaw musóor ga nee na ni ñu waxoon ne moom la ñu masaa góor a jigéen a ci yemoo ñoo bokk ni ñu masaa bopp bu fekkee jigéen dafa létt nag day masaa ci kaw létt yi rek waaye nag bu musóoru faaw mu dindi musóor ga moom du du mën a masaa ci kaw musóor ga lu may nga xam ne amee sedd daa amee ngànt loo xam ne su dindee musóor gi rek sedd bi dugg ko mu daal di gaañu ay bëgg loolu faaw mu dindi ko masaa bopp bi wa tudd xel dana dugal yadayha yaari loxoom min taxti xiqaasi shahariha ci ron letti kawaram nga fii rajo yadayha ci dellu si yaari loxoom yi fii mas yi ca masaa ga nee na jigéen bu fekkee dafa lettu bu dee masaa yoon wu njëkk bi loxo yi day tegu ci kaw letti ya kon bu loxo yi day wàññiku jëm si waat ci jëbi kon na naroon loxo yi ca ron letti ya maanaam kon na loxo yi aw ca suuf ndax fi féeti woon suuf ca letti ya te tooyutoon wañar bi ko bi tooyal ko su ko defee nag loolu ñu wax ne du jaram bi firi létt yi moom jigéen amuñ ci ko yefal ndax lañ ne bu xasee dëgër këng doonte sax létt jigéen yi weñ kawar bopp ndong la waaye dëgër na këng faaw ñu far ko ñu war koo firi su fekkee def na ci lóopu ñaari weñ itam faaw mu war koo firi te loolu seetuñu ba xam jàpp la wala cangaay la seetuñu ci góor wala jigéen am na sax ñu wax naa bu fekkee ni daa àgg ci moom suñ ko firi firi loo létt yi mu daal di far bàyyi bañ a julli ndax ne suma ma mënuma ñàkk léttu te nee nañ ma kon suma jàppee lu baax mbaa suma sangoor lu baax ñu ne ko mën naa fa roy mën naa leen ci fiqu mën naa leen ci fiqu shaafi yi ah mën naa roy daal alimaamu shaafi yi bi nga xam ne moom surtout ñu masaa bopp lépp boo ci masaa yi lenn rek mu roy waaye boobu loolu daal mel ne moom am nañ ci diisal xam ne moom daal amatu yombul daal suma wax si la topp na raxas li ci léegi ñaari tànkam yasub dana sotti almaa ndox ma biyati xii ci loxoom alim naa bay ndeyjoor alaa rijli xii ci kaw ab tànkam alim naa bay ndeyjoor waaye aruku xaatam koy ragg biyati xii ci loxoom ali saa bay càmmoñ xalilan xalilan tuuti tuuti wala ndànk-ndànk yoo ibu xaa dana ko matale bi jaalika ci loolee talaata ñetti yoon ne boo masaaye noppi ba noppi ngay ñëw raxas tànkum ndeyjoor da ngay sotti ndox mi nag raxas ko ñetti yoon la wax waaye wax ji gën a wóor rek moom mooy tànk yi moom da ngay raxas rek ba mu set ngay sotti ndànk-ndànk di raxas rek ba mu set boo noppee bopp ndeyjoor dana ko xalee nga dem ci wu càmmoñ bo insha dem soob na ko xal la mu xalil asaabi xaw baaraamam yi fi daalika ci loolee maanaam baaraami tànk yi ni ko suñu borom bindee dafa jege moo tax moo tax dañoo sopp rek xalil ko waaye agul ci waram ñu baaraami loxo yi moo tax mën naa bu ko soobee mu xalil baaraami tànk yi wayen taraka dem bàyyi na ko it fala xaraja kon dit bakkaar di ci war am fekkee baaraami tànk yi xaliloo ko muy raxasoo xaralee diggante baaraami tànk yi itam du wàññi dara wat taxlil waaye xalil ga ak yoobu moo gën a tey li naf si ñel bakkan waaye xalil gi daal lañ gën a sopp wa yaxruku te muy ragg aqibay yaari testanam wa xurqoo bay ak yaari siisam nee na bu fàttee ragg say testan bu fàttee ragg say siis siis mooy fii fii mooy siis yi yooyu yëpp nee na day bëri bu xaw a làqu day bañ nga mu bañ a tooy nga bañ koo ragg nga fexe ba yóbbu fa ndox mën a ragg ko wama loo xam ne laa yakkaadu du xaw wala du jege yu daaxilu ko di ko dugg almaaw ndox ma bisraxatin ci lu gaaw min jasaawatin ci ay ancaaw ancaaw baatu wolof la waaye mooy day nekk ay ay tal-tal yu nekk ci der yaram wi ñàkk dum dund bu baax dana ko di waral ko ancaaw aw suqooxin wala ay xar-xar fali baalix kon na ko jotal bil xar ki ca rag maxa sobbil maay ànd ak sotti ndox ma beet yi ci loxoom nee na bu fekkee yaramam dafa am loolu ñu wax ay ancaaw ay junni junni ay tal-tal ci yaram yi wala ay xar-xar na ko nafar la bu baax fexe ba yóbbu fa ndox yóbbu fa loxoom ndax fa inna foo naka li mbir moo di jaa dikk na al afarul addis ba fa mu addis bu ñëw di tëkkoo nga xam ne buñ dee laab dañuy sàggan ba am fottoo it mbaa foo xam ne boobuñu ko addis ba dane wooy lun toskare lil anqaa bi ñeel ñu waroon cat ya minan naari ci safara wa xaqi bu chey te xaqi bi dara lu mu mëni doon tarafuhu mooy catam wa axiruhu ak mu jëm anqaab day fii ay tistan ci kaw bu delloo ci tànk yi rek duñu waaye anqaab ay cat rek lay firi dañu tey tëkku rek koo xam ne dafa sàggan ba ci bu dee raxasu cër day fàtte cat la mooy fa ca xaw a làqu da koy fàtte ba du ko raxas xam ne su fekkee yàlla boolu ko fa war a na fa ndox war a na ak ak bomb te te àggalewu ko ca safara bi fecc li fekkee yàlla boolu ko sama yëf xam la topp dana def bilis laa ci tànku càmmoñ nit na saalik kem loolee ne ni nga raxase woon tànku teyjoor nga raxase ko tànku càmmoñ foofu nag la njàpp mi yam walaysa taxdiidu xasli axdaa yi déet limité raxas cëri njàppam talaatan talaatan ñett ñett bi amrin muy mbir moo xam ne laa yu ci siwut koy doon woo lu koy lu ko yées walakin dafa waaye moom ak ferment moo gën jaabar yi la nga xam ne yëf xalu def na ko def nee na wax gi ñu wax booy raxas kanam nga raxas ko ñetti yoon wax booy raxas say loxo nga raxas ko ñetti yoon nee na loolu jublu ji ne ñetti rek mooy baax nga xam ne fu mu waroon kaana ku nekk yoo ibu di matale cër ba bi aqal la ci lu yees min daalika ci loolee ajji sa axoo mu doy ko ida ahkama ndem xereñe na daalika loolee nee na boo mën raxas benn yoon képp mu set te daj wala ñaari yoon rek kon mën nga caayam bu aajoo ngay jàll ci ñetteel waaye nee nañu nag borom xam-xam rek li ci ëpp moo mën raxas benn yoon te mu daj te set waaye bu fekkee sa xam demewul noonu ba sag sag tey demewul noonu say bo lu néew néew nga raxas cër bi ñaari yoon ndax xëy na fépp daj fépp set ay benn yoon rek yem ci tam daj te set yombul ñu bare bare waaye nag soog mu ne itam baax na tax mu ne wala sa kullun naa si déet mboolem nit ñi sawa ñi way yemoo fii ihkaami zalika ci xereña loolee maanaam ñëpp maasi wuñ ci mën a raxas rek benn yoon mu daal di set wala ñaari yoon rek mu daal di set waaye nag nga bañ a fàtte ne ñett ñetti yoon yi itam mooy dayo ba nga xam ne wari su ko weesu moom li ki raxas ñeenti yoon ba juróom moom ba juróom am nañu ko araamal am nañu ko sipp kon sañu laa bàyyi say cër nag ba mu tilima tilim ba nga xam ne boo ko raxasee ñetti yoon sax du ko tax a set loolu moom waxat xaala waxoon na rasulullah yonente bi yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam ne man tawadda ak jàpp fa ahsana te mu rafetal alwudu jàpp ma suma rafaa topp mu yëkkati tarfahoo gisam ba ila sama jëm ci asamaan fa xaala te mu wax ne ashhadu naa seere ne am naka lay mbir laa ilaha amul benn buur illallah ndara yàlla waxdahu moom rek laa sharika amul jenn aji bokkaale dafa ñeel ko wa ashhadu te maa ngi seere ne anna muhammadan naka muhammad abduhu ab jaamu moo rasuluhu tey ndawam fatihar kon ubbeef lahoo ñeel ko abwaabul jannati bunti ajjana ak thamaniyat yéen juróom-ñett yadxulu dana tàbbee min ay xaaj ba mu ci ñoom shaa soob na ko mu ne addis ba nee na bu fekkee dangaa jàppe nañ la sante mooy faratay ñëw na sunne ñëw na ngëneeli ñëw na nga yëkkat say bët xool ci kaw asamaan boo nekkoon fu mel ni biir tawaab bi mu nekk nga xam ne boo xoolee doo seen asamaan du teere nga yëkkat say bët xool ci kaw daal di wax nag ashhadu jéem wax ba ci abduhu wa rasuluhu nee na boo ko defee ñu ubbil la juróom-ñetti bunti àjjana yi bu ko defee nag bu la ci neex ngay duggee lañ woote mooy wax bi la koy ubbil rek lañ woote waaye wér na ne moom daañu la ko ubbil waqad istahaba sopp na baxdul xulamaa yi leen ci way xam ni ay yàqoola mu wax bi isli doori ci gannaaw njàpp ni allahuma yow buur bi ijxal li yàlla na ma def mina tawaa bi na ma bokk ci tuubkat yi ñi nga xam ne bu ñu defee bàkkaar daal di ko tuub fa saasa wa jaxal ni yàlla na ma def minat na minal mutatahirina minal mutatahirina ma bokk ci way laab ñi ciy bàkkaar yàlla boole ma ci ñi nga xam ne daal moom bàkkaar bàyyi ko ci ñoom rek daal di ko tuub fa saasa xam dañuy seen wecc ci bàkkaar loolu dafa wax ne borom xam lenn ci xam-xam yi sopp nañ waaye neen ci hadis ba la bokk waaw ci hadis ba la bokk ba noppi moom mu ne lenn ci way xam ñu sopp nañ ci hadis ba la bokk hadis ba boole na fi sax wajjal nii min xibaarika saalihina waaye jibu dana war alayhi ci moom añ ya amala mu jëf amal la mu mooy jëfi njàpp ma ihtisaaban ngir sàkku tuyaaba lillahi ñeel yàlla taala kawe na li maa ngir li nga xam ne amalahoo digal na ko bii ci moom yar joo dana yaakaar taqabulahoo nangoom nga wa sawaabahoo ak yoolam ba wa tatxiirahoo akuk laabalam mina zunoo bi ci ay bakkaar bii ci moom nee na boo dee bëgg a jàpp yow mu kàllaf mi da ngay def rek ngir yàlla jàpp mi ngay jàpp ne yàlla rek tax nga sàkku ci tuyaaba yàlla xam ne moo la ko digal ko defee nga def ko yaakaar ci mu nangul la ko te fay la ci tuyaaba laabal la ci bàkkaar ci bitti ak ci biir maanaam laabal la ci ay bàkkaar ci biir ni mu laabalee saw yaram ci bi nga jàppee ndoxam mi waaye siru te muy xamal te muy yëgal nafsahu boppam ne anna zalika naka loolee te ahubun ak waaj la wa tanazzuhun te di ak set li mun aajaa te rabbihi ngir déyaale boromam wala waqoofi ak taxaw benn yeddee diggante yaari loxoom li adaa i faraaidi yi ngir ci wax farataam ya wal xudoo ak toroxlu loxoo jëm ci yàlla bir rukoo ci rukoo wa sujjoodi ak sujjood fa yamalu te muy jëf ala yaqinin ànd ak wóolu bi daalika ci loolee wa taxaw vasin ak wattandiku fii ci moom fa inna tamaama kulli xamalin naka matub jëpp jëf bi husni niyati nekk na ci rafetu yéene fii ci jëf ja nee na boo bëgg a jàpp da ngay fàttali sa bopp ne man kat li muy bëgg a def waajtaay la ngir bëgg a set bu mën a diyaale sa borom taxaw ci kanamam diggante yaari loxoom yam wax taxaw ci kanamam rek la jublu nga nar a taxaw ci kanamam jox farataam nga nar a taxaw ci kanamam toroxlul ko màggal ko ci ni ngay rukoo ni ngay sujjoot su ko defee kon nee na booy jàpp da nga jàpp loolu sa xol te wóolu ko bañ ko nattawle ko defee nga sellal yéene ji ndax yéene ji sell rek mooy tax jëfu baax baaboon li ab bunt la firgos ni ci jàngaay amma tuxuru ndaal jàngaay fa huwa moom minal janaaba tukkee ci janaaba wa minal xaydati ak ci mbarëk wan nifaasi ak wasin sawaay nga yemoo lañu dana cangaayal farata yi koy sabab moo wute waaye moom ci boppam moom ni ñu koy defee nen la bokk na ci yi koy waral nag amee janaaba wala dereti mbarëg ju jeex wala dereti wasin ju jeex yépp dana ko waral waaye ni ñu koy defee moom nen la fa in iqtasara ndeem gàttañ lu na almatatahiru aji sangu ja xalal xusli ci cangaay la doon wa dooyu ci dul njàpp ma aji sa aloo kon mu doy ko nee na bu fekkee dangaa sangu kese yam ci te boole woo njàpp benn benn bi du ko tee baax wa afdalu waaye la gën la wëññeel ko an yettawadda amooy mu jàpp bax da an yeb daa ci gannaaw ba mu jëkkee bil xasli ma ci raxas la nga xam ne bi farji yi nekk na ci ab sawkaayam aw jasadi yi wala aw yaramam minal aza ci sobe su ma tawadda topp mu jàpp mu doo salaati njàppum julli li gën nee na mooy dañ jëkk raxas loxo yi ñetti yoon bu dee tàmbalee sangu farata daal tàmbalee jukki nag di tàmbalee jumbax ba ci bëti woom raxasaale bunt suuf ak sawukaay bi te yéenee foofu wala bëti gën a njàpp njàpp benn benn nag fa insha ndeem soob na ko xasala mu raxas rëjële ñaari tànkam wa insha ndeem soob na ko axarahuma mu yéexe leen ila axiri xusli yi ba ci mujj cangaayam nee na bu la neexee booy njàpp njàpp benn benn bi tànk yi nga far ko raxas fi saasa bu la neexee itam yeexe ko ba ci mujj cangaay bi su boo ko soo ko dee yeexe dana wax kañ koy raxas sama yeexu bi si topp dana nuural yeddee yaari loxoom kiri naay ca ndab la wa yarfaxumaa te mu leen di yëkkati mu xayra